سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مؤمن عن النفر tey nag sa mbokk dafa ñëw sa xarit ki ko yónni di sa lépp di sëriñ Abdoulaye Sylla jàmbaari Seexul Xaddim ji ki nga xam ne tey ndaraan yi ngay gis ak tracteur yi da koy wàcce di bayal sëriñ bi ngir sëñ Tuubaa waaye Ablaye yónni rakkam ju baax ji toog di sëriñ Saaliwu nee naa ku ñu tudde sëriñ Saaliwu waaye di jaay waxaaleel da ngay fay sëriñ sali waay borom jàpp ndal sëriñ Saaliwu waay borom jurul sëriñ Saaliwu waay borom xabaan maamoon Salim maamam coro ngoonu Kumba Jeng Seex coro Balla coro ba Mbàkke Kumba Tayba mu ñëw ànd ak ay bokkam ànd ak waa bureau bi yëpp si kaddu Serigne Ablaye Sylla rak euh, magam Serigne Ablaye boo ko séenee muy dem réew mi rek ko ñor nee naa nag boo bëggee réew mi da ngay bëgg sëñ Bamba boo bëggee sëñ Bamba rek bëgg réew mi bëgg la sëriñ bi moom boo ko bëggee nga doon doomi dëkk bi doon doomi réew mi ni sëriñ Touba bëgg sëriñ Touba teel la boppam réew mi moom moom magam réew mee ko bëgg ndax daa bëgg sëñ Bamba. Abdoulaye Sylla nee na rakam jii di Serigne Saliou Sylla ne ko Xaadim Kebe mu Serigne Touba Xaadim Rasoul mu Serigne Sidil Muxtaar borom Nganna borom Mbakke Kajoor borom gi mbind ki la dimbali. mu ne ko demal teewal ma ne ko Xaadim sunu kóllëre ak sunu diggante sëñ Bamba la. nee na tey bu doon taw ba kenn amul foo jaar moom dina xuus moom Serigne Saliou ñëw teewal magam Ablaye loolay kàddoom. Ablaye nag nee na Touba ko ñor nee na Touba moo ko ñor ndax nee na moom murid la nee na magam Serigne Ablaye nee na magam Serigne Ablaye moo yeesal barabu Serigne Sidil Mokhtar mi la dimbali magam Serigne Ablaye moo yeesal barabu Cheikh Mouhamadou Fadal kon loolu lépp doy na sëkk ci ab liggéeyam Touba. moom mii moo fi teewal sëriñ Ablaye Magam mu doon jàmbaar ci dëkk bi liggéeyal dëkk bi ñor ko ak liggéeyal taalibey sëriñ Tuubaa nee na sëriñ Saaliwu am ji moo ko si teewal nee na sëriñ Xaadim yow boo ñaanee ma nangu ndax ku sell nga waaye ku bëgg sëñ bamba nga nee na mi ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di leen tatagal waaye di am mbégte ñëw fii ci këram. waaye di yeesalaat cofeelam ci sëriñ Xaadim Kebe mi toog. waaye di ko yóbbante magam nuyoo Abdoulaye Sylla muy feddali kóllëreem ci moom. nee na ko tedd ki nga xam ne ñoom ñoo bokk bëgg ko muy sëriñ Sidil Muxtaar borom gan na ne dafa am foo xam ne nii tegoon na leen fa. nga xam ni Serigne Chiril Muxtaar am na fu kawe fu mu leen tegoon. Euh, ba tax na Serigne Abdoulaye dañu ko daan dippeel. nee na Serigne ko daan dippeel. yow yaay ñu naan ko Serigne Abdoulaye yow yaay doomi Serigne Chiril Muxtaar. Euh, nee na Serigne Chiril Muxtaar sa waaj jëfal na ko jëf joo xam ni. Euh, nee na leer na si bëti murit yëpp. nee na ba nga xam ni kóllëre googu moom la ñuy ñëw moom rakkam jii di ko feddali ba tax na nee na taxawaayu liggéey bi nga xam ne mi ngi jëm Touba nee na dafa bëgg ñu ànd ak moom ñu liggéey ko liggéey bu mucc ayib nee na Serigne Abdoulaye ku am yéene la si murit bi moom kat murit àqan la nee na moom mii di rakkam mën na koo seede nee na fu mu toll lu jëmale lu jëmale yoonu Serigne Touba rek la Serigne Ablaye nekk ba tax na li fi Serigne Abdoulaye def nëbbuwul ñépp gis nañ ko nee na Serigne Abdoul Karim Mbakke mu Serigne Fallu moo tax mu addu si mu ni Ablaay mii lépp lu mu bëgg ci dëkk bi lépp lu mu bëgg ci dëkk bi kenn du leen ci jiitu ñoom njabootuk sëriñ Fallu gi kenn du leen ci jiitu ñoom njabootuk sëriñ Fallu ak njabootuk sëriñ Baara ak njabootuk sëriñ Baara moo tax cofeel boobu ñu bokk ñu bokk ñoom ñaar cofeel boobu bokk ñoom ñaar moo tax mu ne ma naa ko fi moo tax sëriñ Saaliwu si la mii di rakkam teewal ko ko di ko jottali di ko jottali nuyooyu Ablaye ab mi am ci moom mbégte mi Serigne Abdoulaye am Serigne Khadim Kébé miy toog moo tax mu jóge ba Ndakaaru ñëw fii Serigne Khadim ci yow di ko ñaan yàlla sunu borom mu yokk taxawaayam te xam ni ànd bi li ñu si bëgg sabat ko si am nañu yaakaar sunu waaja sunu waaja Cheikh Sidil Mokhtar dinañu gunge kat ñun ba nu àgg fa nu jëm mu ubbil ñu am nañ ci yàqin waaye di ñaan yàlla suñu borom moom mi nga xam ne moo man kenn mënul ku dul yàlla mu defal saxaatatu daaray ni kon Serigne Saliou nee na dañuy gàttal kaddu gi yamale ko foofu di ko siyaaraat bu baax waaye di gërëm mbokki taalibe yi jànkatu xasida yi fi fekk yépp nee na kontaan nañ ci ñoom nee na am na waxtaan woo xam ne kawe na lool war nañ koo waxtaan jëmale ko nag si jànkatu xasida yépp nee na Serigne Abdoulaye nee na dafa am yéene bu kawe si jànkatu xasida yépp nee na da koy tàmbali Serigne Xaadim mii toog xam na ne incha allah di leen jokkoo bu baax gën a ñagal loolu bu sooba Serigne Touba nee na Serigne Saliou mii toog moo ñëwoon moo ñëw ànd ak i rakkam Ablaay yabal leen Ablaay Serigne Khadim moom kat li mu xam ci moom bu màggaluk Serigne Bamba gi jubsee nee na tëj na bureau ba nee na oto yi ak ndaraan yépp ñëw nañ Touba. nee na ñuy sëkk Touba kon kàddu gaa goog sëñ Xaadim nee na mi ngi nuyu mbooloom mi yëpp nee na taxawaayam bi ak sëriñ Abdoulaye Sylla mi ko yebal nee na mi ngi nuyu sëriñ Saaliwu Sylla mi di ko sant waaye di ko sant di ko gërëm di ko gërëm nee si jéegam yu rafet yi ak wëllëram yii mu àndal yëpp mi ngi leen di nuyu ak wëllëreem wi mu àndal Serigne Mara. Serigne Saliou. sëriñ Saliou. rafet na bu baax. Serigne Khadim nee na kaddu yu rafet na lool. lim ci def mooy. nee na lim ci njëkk a def. mooy ñaanal dañu lay ñaanal rek. ci bis bii. ci bis bis bii nag. nee na bis bi attan na lu ne ci lu baax. nee na bis bii attan na lu ne ci lu baax. bisub Serigne Touba la. nee na bis bi bisub Serigne Touba la. Serigne Saliou ñu ngi lay ñaanal. sunu borom guddal saw fan. sa tawféex. yokk saw tawféex. loo bëgg yéene ci dëkk nee na lépp loo bëgg a yéene ci dëkk bi. ak loo bëgg ci réew mi. yàlla na la ko Serigne Touba defal. ci barke Cheikh Sidil Mokhtar. ci barke Serigne Sidil Mokhtar. réew mi nag. nee na réew mi. réewum Serigne Touba la. réew mi réewum Serigne Touba la. lu ci waay jëf ci lu baax. nee na lépp lu waay jëf lu baax. lépp lu ci waay jëf ci lu baax. lépp lu ci waay jëf ci lu baax. mu aw yiw ci réew mi. mu doon aw yiw ci réew mi. Serigne Touba ngay jëflanteel. Serigne Touba Mbakke kat ngay jëflanteel. waaye ñu ngi ñaan Serigne Saliou si barkeb Serigne Touba. nee na boo fi jógee nga yokk ba yëg ko. nee na projet yi ak yéen yi yëpp. yàlla na ko Serigne Touba mottali. nee na nag ñu ngi lay yóbbante ci Serigne Abdoulaye. nee na Serigne Abdoulaye kenn la si moom. waaye kenn la si Cheikh Sidil Mokhtar. nee na Cheikh Abdoulaye. bu jëfuloon jenn jëf. nee na bu jëfuloon jënn jëf. ni ko sëriñ bi jàppe woon. nee na ni ko sëriñ bi jàppe woon. ak ni mu meloon ci Cheikh Sidil Muxtaar. ak ni mu meloon ci Cheikh Sidil Muxtaar. nee na loolu rek war naa tax mu jàpp sëriñ Abdoulaye. nee na barabu sëriñ Sidil Muxtaar bi ku fa dugg soxol sedd na. nee na Abdoulaye ñépp la ko defal. nee na bu masaana ñëw si sëriñ bi. ñoom ñaar daje nañ fa ba tey. xejjoon ci sëriñ bi. nee na képp ku xejjoon ci sëriñ bi. xam naa moom sëriñ Xaadim Kebe xam na la. ñenn ñi. nee na ñenn ñi. jaabante bu bari tax ñu xamee. jaabante bu bari ñoo tax ñu xamee. ñenn ñi sëriñ bee ma booleeg ñoom. waaye ñenn ñi nag sëriñ bee ko booleeg ñoom. ndax sëriñ bi daf ne ma. nee na sëriñ bi da koo waxoon ni ko. kër gu ma nekk. kër gu ma nekk. del def ni xorondoom di def. del def ni di def. mooy del dem di dikk. mooy sëriñ Xaadim del dem di dikk. nee na loolu la ko sëriñ Sidil Muxtaar waxoon. moo tax ma saan toqoog moom. moo tax ku ma saana taqoog moom. man xam naa am na lu ma xam ci yow. nee na Serigne Abdoulaye. lépp lu mu masaana jëf. am na loo xam ne Serigne Khadim daana ko fekke. nee maam ma moom kët fekkewul lépp. waaye am na lu mu daa fekke. kon nag ñi ngi sant Serigne Abdoulaye bu baax. waaye Serigne Abdoulaye si la yéeneem si senegal yàlla na ko sunu borom mottali. Serigne Sidil Mokhtar nag. nee na Serigne Sidil Mokhtar. ku ci àdduna. nee na képp ku mu àndaloon si àdduna. war ngaa sant yàlla. war ngaa sant yàlla. waaye Serigne bi bu la wanee ginnaaw. say mbir di gën a jëm kanam. say mbir kat sa lay gën a jëm kanam. nee na moo ko wax loolu sa Mbàkke Kajoor. nee na booba Serigne bi yére bu bula la sol. mu ne ko lépp lu ma man si àdduna. man mii bu ma leen wanee ginnaaw. boobu lay raw. bu dee àdduna ñaari bët lay xool. waaye bu dee àdduna ñaari bët lay xool. ndax dana wàllu yu bu fekk bu fi nekkee ñaari bët lay xool. wàllu yu bu fi nekkee ñaari bët lay xool. waaye bu dëddoo ñeenti bët lay waaye nag bu dëddoo ñeenti bët lay xool. loolu tam Serigne Moustapha doomam ji seere na. nee na loolu Serigne Moustapha doomam ju baax ji seere na ko. yeesa yeesa da koy wax lu bëree bëri. da koy yeesal di ko wax lu bëree bëri. kon nag kon nag. na rafet njort bu baax. Serigne Abdoulaye na rafet njort. ndax kenn du liggéeyal yàlla. nee na kenn du liggéeyal yàlla te yàlla du la fay nee na Serigne Sidil Muxtaar yàlla rek la doon liggéey da koo roy ci maamam nee na maamam yàlla rek la kon nag jërëjëf nee na mébét yi nga mébét yàlla na yokk yàlla na lépp àgg nee lépp loo bëgg ci réew mi yàlla na nga ko mën te ñëpp ànd ak yow fas yéene ñu ànd ak yow ni ñu ànd ak Serigne Abdoulaye nee na Serigne Xaadim moom ci réew mi la dëkk te réew mi am na lu mu leen defal ndax réew mi yëpp ñuy bëggee ndax réew mi yëpp leen di bëggee nee na ñoom bu nu goree lii leen war ngeen bëgg a defar réew mi lii leen war ngeen bëgg a defar réew mi ñun tamit loolu war nañu nee na kenn waruñoo gën a njëkk a defar réew mi ndax réew mi ñu ci bari bu leen bu ñu amee lu leen neex dañoo duglu xasida bu ñu amee lu leen naqari bu ñu duglee xasida mu jeex kon nag ñun ñi bokk na ñi defal réew mi bëgg a defar réew mi. kon nag yéen boo leen jógee bëgg a defar réew mi. kon nag ñun ñii il faut que ñu aw ànd doon benn. réew mi leen ndax réew mi moo leen ñor. ñun tam réew mi leen ñii tamit réew mi ñu ñor. ñi ñu teral. nee na ñi ñuy bëggal di ñu teral. mooy ñi ngeen bëgg taxaw rek yéen. ñi ngeen bëgg a taxaw rek yéen tamit. te yàlla na yàlla mottali lépp. nee na Serigne Saliou lépp loo nekk mi ngi ci. nee na moom bu jàppee. ñëpp moom Serigne Xam dina xam ne jàpp na nee na moom ñeme na péete. Abdoulaye nag loolu mu yónnee ci xas ci jànkatu xasida. nee na Abdoulaye li mu yónnee si jànkatu xasida yi. danañ gisee sëñ Saliou. nee na jànkatu xasida yi toog. ñoo gën a gaaw ci lu nit bëgg rek. nee na lépp lu nit bëgg am rek si jànkatu xasida yi la gën a gaawee. ma yoo xam ne ci secret bu gàtt. nee na mi ngi lay wax secret bu gàtt. bu fekkoon ne waxtu wu nekk ngoon gu jot ñaar da ngay ñëw ay jànkat dina ñëw yëkkatil la nee jot ay jànkat ñaar ñëw yëkkatil la yëkkati yi ñu lay yëkkati ci xasida ci sa barab nee na yëkkati yi ni yëkkati sa barab loolu day dolli sa martaba nee na loolu day dolli sa martaba xam na day média mënuñu cee leeral nee na xam nga média baa ngi tiim mun ta leeral waaye ñu bari yëkkatiku fii ne waaye ñu bari ñu ngi yëkkatiku jànkat yi lañ daa jël di leen wéttiliku nee na jànkatu xasida yi rek la ñuy jël di leen wéttiliku ba léegi ñu dégg nañ leen ci ci martaba yu nañ leen ci martaba yu kawe teral jànkatu xasida eskale la. nee na teral jànkatu xasida nag dafa mel ni eskale la. loo bëgg moo ci gën a gaaw nee na lépp loo bëgg moo ci gën a gaaw. Sëriñ Tuubaa moo ko daa defal boppam. nee na Sëriñ Tuubaa Mbàkke moo ko daa defal boppam. moom moom kat moo leen daa wutal ay yére. daana tàngal ataaya ci loxoom di leen ko jox. daana tàngal moom sëriñ bi mag bi si loxoom di leen ko jox. nee na sëriñ Saliou mu wax la secret boobu. waaye bëgg te bëgg ci gaaw a jot. nee lépp lu waaye bëgg te gaaw a jot si. wala nga raw say moroom te kenn doo la dab ba faw. wala nga raw say morom te kenn du la dab faw. del teral di leen wéttali. nee na del teral jànkatu yii di leen wéttali. te loolu ñëpp a ngi ko toog di ma seere. nee na a ngi toog di ko seere. nee na caméra yii ko tiim bu fayoon dina la wax lu leer nañ. kon nag sa teewaay bii. nee na Serigne Saliou kon sa teewaay. nga xam ne yokk rek nga ciy jëlee. nga na nga xam ne yokk rek nga ci jëlee. du ñun nag Serigne Touba la. te du ñun ñii nag lépp Serigne Touba la. bee la koy defal. xaside yi la koy defal. nee na bala ñoo del si déwén. nee na di nga gis li la xaside yi jariñ. nee na di nga gis sa tànk yi. ëppoon na ëppoon na bañ a def. ëppoon nag man kat dinaa ah, demuma sa bisu Serigne Khadim sëriñ Aliou nee na sant nañ ko nanu nangu ñaan bisimilah amin amin amin kebe amin